liggéey boo gis rek am na ay naxekat atta seen liggéey bii ngeen liggéey am na si ñoo xam ne moom dañ ci dóor li ñuy wax dóor noonu la bëree ci ñun sëriñ si tamit ñu ngi tuddee sëriñ si waaye man sax xaw ma ndax sëriñ la xaw ma ndax sax ndax li ma doon mat naa ko wala matuma ko waaye jaamu yàlla laa naxe bi bëri na te damay wax ne ki ngay nax sa doom la wala sa jarbaat la wala sa tante la wala sa mag la wala sa nijaay la te doomi réew mi la te damay wax ne ñaan yàlla yomb na yombut nañ jug daasaat suñ tànk yi daasaat suñ paak yi dem uti ji xam-xam sàkku xam-xam te nañ ko teg ci ragal yàlla ndax nit ki la yaakaar oo la téléphone wax la soxlaam yónnee la xaalisam ngir yàlla yonent bi jéem koo ñaanal yàlla waaye tamit jéem koo jox lu mën a jagal yaram bi feebar boo gis rek am na garab gu koy faj alquran yàlla nee na bàyyiwuma dara ci alquran maa farax naa fi kitaab min shay bàyyiwuma dara ci alquran ci lépp loo soxla rek mu ngi ci alquran ci kon nag da ngay dem gëstu ko ndax di nga gis koo xam ne dina mokkal alquran lool waaye yàlla ko ci may tawféex nga gis ne koo xam ne alquran tuuti la ci jàng yàlla may ko ci tawféex du ne sëriñ si ñu bëri xamuñ dara wala du ne déedéet ndax nit mënoon naa nekk ci banditisme dem ba tuub yàlla def ko mu nekk sëriñ loolu dañ koy nangu xam nañ ko moo gën nga nekkoon ci lu baax mujjee ci lu bon yàlla nañ ci yàlla musal waaye naxe bi dafa bari ci te ki la yaakaar ba ñëw yàlla la jiital ci yow sa digganteeg moom te na xam ne lépp loo def rek sa digganteeg yàlla kon ki yaakaar ba ñëw wax la ne la ñaanal ma yàlla rek da ko war a ñaanal bëri na nag ñuy naxe ndax bari na ñuy gàmmu wala bari na ñuy màggal bari na ñuy ras dem am na ñoo xam ne gàmmoo leen yóbbu am na ñoo xam ne màggale leen yóbbu am na ñoo xam ne yëf saay-saay mooy leen yóbbu kon milieu bii nii noonu la amee tamit ci ñun bari na si ñoo xam ne ay yàqkat lañ waaye nañ ñaan yàlla rek lépp luñ ci mën a def rek yàlla dimbale leen ñi ci jubal yàlla dimbale leen ñi ci nekk di yàq yàlla sepp leen teg leen fële dafa bëri samay nit yoo xam ne du ma ne samay taalibe de ndax man awma taalibe waaye ñoo xam ne dañ ma yàllaa ma boole ak ñoom ñu nekk bitim réew ñu nekk ci yeneen réew yi Gambie ak Sénégal fii am na maa ngi jëflante ak ñoom fii waaye dañu ko yàgg dama ko jooytu ne ma ñu dañuy dem ci sëriñ suñuy waxtaan ak moom te joxaguñ ko xaalis bu ñu leen war a jox xaalis chaque jour yi ñuy déggante ñoom waaye bu leen joxee xaalis ba pare dootuñu sax uyu duñ liir suñ vocal duñ liir suñ nàngam te ñun ci àll bi lañ nekk yaakaaruñu luñ leen wax ne leen ñooñu ay doomi réew mi lañ gis nga sëriñ dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki ragal yàlla sëriñ dëgg dëgg dëgg ki tuddee sëriñ mooy ki ragal yàlla il faut que nekk ci yow ak ragal yàlla nga mën a nekk sëriñ te sëriñ dafa bëri façon am na ci koo xam ne sëriñu ñaan yàlla la nii rek def affaire listixaar ñaan am na ci koo xam ne sëriñ pour jàngale daara il faut ñu leeral loolu am koo xam ne sëriñ pour yaraate ci yàlla la mooy ay jëwrin muqaddam et cetera noonu la mel waaye am na ci koo xam ne nag utukaay xaalis la ko def waaye sëriñ dëgg-dëgg da koy fekk ca roon keppaaru maamam ya ci roon keppaaru baayam ya mu toog fa tarbiyu leen terewul def boppam taalibe def boppam ku suufee di ñaan yàlla waaye yow boo duggee ci moom rek di nga xam ne kii sëriñ dëgg la te lu mu la wax du dañ te lu mu la wax di nga ko gis kon sëriñ dëgg-dëgg mooy ki ragal yàlla ku simple ku yéene li mu yéene boppam mu yéene ko jaamu yàlla yi ubbi buntam nit ñi ñëw mu saafaanteeg ñoom jàppalante la yàlla tax man de loolu laa xam ci sëriñ waaye beneen sëriñ moom xaw ma ko dañ jamono buy dox da nga dox ànd ak moom internet baax na génn wax sa bopp ndax ci nga mën a jaay say produit yow boo amee produit bu baax tey boo amee produit bu baax da koy génne ja wane ko waaye ki koy gis bu ko xasee ba ñun utiliser ko bu baaxee ci moom moom dina la wax produit bi baax na waaye bu bonee dina la wax tamit produit bi produit bu bon la ndax ni ni mu génnee wax ëllëg moom mën nañ ko dalal mu ne produit bi jëndoon naa waaye bi ma ko kon noonu la amee ci sëriñ bu bu mos la dana xam ne yow mii sëriñ bu baax nga dana xam ne yow mii théâtre kat nga boo bonee moo xam ne kii théâtre kat la day wax wax lu ko ne te li muy wax dara la ci gëmut ba pare di ci déggoo ko ay nit ñuy def ay comédie ay film ay naxaate loolu amul benn njariñ ndax ki ngay nax xamal ne bu subaa di nga ko yelloo yàgg sa borom kon bëri na boo gisee tam ñun ñu génn nii dafa am lu ñu naqadi li ñu naqadi mooy dañ koy génn wax ko ndax am na ñoo xam ne dañuy bubboo suñu maam yi am na koo xam ne day ñëw bubboo famille ñeseen ne man sëtu Alaaji Abdoulaye Niass la man sëtu Baye Niass la wala man taalibe maam Alaaji Abdoulaye Niass wala man taalibe Baye Niass la fan nga ko teg kon bul yàq suñu der ñu ñu yàlla dafa fóot dafa leen fóot ba pare amuñ benn gàkk kon bu leen jéem a yàqal kon il faut que tamit ñun ñu génn jéem wax ak askan bi ñaan yàlla am na ñaan yàlla am na yàlla faj sa xaajo am na te ba léegi mu ngi fi la maam yi mënoon ba léegi mu ngi fi jóge ko fi waaye ci ñan ak ci kan la loolu nekk yàlla alxuraan bëggul sobe waaye nga ne yow sëriñ nga boo paree tëdd nelaw boo xëyee naan ko li ma gént yaa ngi ndax sa bopp loolu du sëriñ loolu nañu wax ni kii day comédie rek day naxe waaye yow mi koy yow miy dem ci moom rek xamal produit bi ngay jënd boo mosee produit bi mu neex rek di nga ñëw bu produit bi neexu rek doo dootoo ko jëndati